maam Cheikh ah. Assane maye mag la Assane maye la version avocat balaa nga indi sa version. avocat bi nee na. da la dëkkal. Mhm. jox la alal. Mhm. Euh, pratiquement say besoin yëpp moom moo ko doon def. nga koy soxlaa yëpp waaw mais xaw bi loolu amee. bi ah. loolu amee ah mais bi loolu amee. bi loolu amee ah waaw waaw bi loolu amee. ñu ñu dégloonte ñu dégloonte. bi loolu amee waxal avocat bi. bi loolu amee mais El Hadj Diouf la moom xam na ko. bi mu waxee loolu. ci télé. doom baayam la sax. Mm-hmm. ay ay ay ay doomam dañ ko seetaan. Mm-hmm. am ci doomam boo xamante ni jigéen la dama am ak moom ay relation mm-hmm. ci waxtaan ma ne ko waa mais booy maa ngi nekk prison sa baab mu ne ma moom. moom papa daal bëz a ko sonal ñun sax ko jaxasee ak moom finalement. marqué Serigne Fallou Mbaye li may wax xam naa. comprendre nga man du ma fen. léegi koo xamante ni yow boo wàccee sa saal man li may wax ni dama ko fekkee. xoolal même bu fekkee dafa maa dëkkal. nga nekk ci kër gi di fa tox yàmba ak di utiliser drogue. non man moom man moom. loolu la wax uh-huh. damay fàttali rek. waaw moom muy nangu loolu pour sénégalais yëpp xam. moom bu koy nangu loolu ko pour sénégalais yëpp xam kan mooy. Assane Diouf maa ngi koy commencé ci sama xalifa général man. sama toxum yamba nëbbu ma. ubbul kenn abdul amoo garantie. mais loolu yow indi wuñu non non non dafa naan parce dañu nekk ci monde boo xamante ni dafa évoluer. non may ma may ma may ma may ma parce que dëgg. non non non non non question question la. question bu ñu dem ci affaire sénégalais grand yow européen nga. xam nga li tax may wax loolu xam naa xam naa damay leeralal rek. parce que parce que damay bëgg dama bëgg sama copain bi mm-hmm. am victoire. Mm-hmm. te victoire bi mooy toujours foo mën a toog rek ne waa ji lu mënti am tam wax na dëgg. dëgg te àdduna bi dafa dafa jaxasoo fi mu toll nii. man Amérique laa nekkoon. mbedd ma ma nekkoon quarante septième boo demee fi mu toll nii ah building bu ëpp wal fajiri moo fa nekk boo xamante ni bépp xeetu yàmbaa buy sax ci àdduna ñu ngi ko fay jaay muy faj ay doomu aadama. déglu leen ko déglu leen ko baax. xam nga foofu rek laa yem. Hmm. te bis bu ma yàlla dimbalee ba ma am pouvoir fii biir Sénégal. Hmm. Ah, dinaa fexe ba ñu légaliser ko garantie. ah lu tax lu tax. dafa am ay xale yoo xamante ni dañoo juddoo Denver Colorado. Mm-hmm. am feebar feebaru comme xale yi ñuy wax nunu xawma nañ ma jéggal ci tur bi mm-hmm. ay seex yoo xamante ni ay mag rakk lañ sax ñoom ñoo am Denver tool bu la neexee nga gugul ko ñoom rek ñoo am autorisation saxal yàmba xoolal li tax ñu am autorisation bi ñoom ñoo def seeni recherche recherche recherche ba génn ci ay médicament yoo xamante ni xale yooyu nga xam ne dañoo waroon a génn àdduna war a waraltu woon wax wala ñuy continuer di kii ñu ngi mm. jàngi ñu ngi dox seen soxla te bu ma mënee am boobu médicament nga xam ne ñax la boo xamante ni yàlla moo ko saxal ci suuf du cigarette cigarette tubaab yee ko defar pour rey nit ñu ñuul ñi mm-hmm. bii nag yàllaa ko saxal ci suuf pour doomu aadama yi ñu ciy faj ay junni junni doomu aadama États-Unis France Angleterre Allemagne ñëpp non non non non may moom ba ma jaar ba ma daanoo may moom ba ma mu ne mu ne. ma ne yambaa boobu doonul ne yambaa brut bi ngay jël tox ko. ba ba ba ba ne amul kenn amul kenn non defal naa xoolal xoolal liñ ciy dindi moo gën a garaaw sax brut liñ ciy dindi ah lépp ah moo gën a garaaw sax brut parce que naa am. débat bu intéressant la xoolal mënoon naa am keeg yi. Mhm. gâteau yi ñuy defaran ah. mhm. fekk la fii jox la ko nga lekk ko. xoolal am lu mu la dimbalee. je sais mais léegi dañ ko def xam nga loolu ba mu doon médicament daf leen arrangé yéen ci benn côté am na lu bari looy diw ci sa yaram bi ci yàmbaar la jóge muy diw yàmbaar day dégg voilà jeex na muy diw yàmbaar yow li la arrangé ci loolu nga utilise ko comprendre nga li ma la ba pare tam dëmm ñeneen ñi utiliser leneen. man grand yi sax defaroon naa ko ci diw. waaye man la man la waxuma la man kay xoolal. mais mais il tool bu toll nii. commissaire jëpp tool ay hectares. yaram xam nga ba pare défendre sama jeunesse bi nga xamante ni chaque jour ñu leen fii yàmbaa dof la wu fi kenn yow jeune bi tux yàmbaa yow laay waxal. Ah. bu fekkee yàlla dimbali na la xam nga mënoo koo bàyyi bàyyil cigarette bàyyil nicotine bi nga koy booleel loolu laa lay digal. bu loolu weesoo bu kenn tux yàmba. voilà ah, non dafa génn te dafa nekkoon ci liñ ko ne dalal naa la ci kër dundal la. ci loolu lañ nekkoon non parce que saa yu boobu waaw kooku. ki wax loolu. weddiwuma tux yàmba parce que nëbbuma ko. Mm-hmm. nëbbuma ko moom tamit. moo tax mu xam ko. mënoon naa faa nekk ba jóge fa du ko xam. Mhm. mais man ak moom ci jamono yooyu muy wut bës. ñoo daan yéeg ci kaw terrasse mu mhm. teg seesam doomam toog ma toog ma taal sama joint. Mhm. musu ko wax ba mu am lu ko neexul parce que tegu na ci lu dul dëgg. Pape Ndiaye wax ko neexawul ak Pape Ndiaye fii ba mel ne mburoog soow ah neexoo ak ba mel ne mburoog soow yow nga wàcc yoon ñu ne la yow nekkatoo ci yoon doo waxkatu dëgg kàccikat nga. nga génn di xas nit ñi ka tam nit ñi dëmm ah topp suñu frère boo xamante ni sénégalais yëpp am ci moom yaakaar du la mës a tontu man Ousmane maa ne wallaahi. kon kay li avocat bi dëgg na ko këram. non non avocat bi dëgg la euh, yoroon na ko këram non ah, non defal nànk defal nànk defal nànk weddiwuma loolu. waaw weddiwuma. waaw weddiwuma ne. nekkoon naa këram. ok mais nan laa demee këram nga war a laaj. ok lan moo la yóbbu këram noo demee këram. wàcc naa ci avion. ñu yóbbu ma dig ma fanaan dig benn fan. ñaareelu fan ba ci guddi gi ñu libéré ma ma ñëw sama kër sama yaay ngi may dégg yàlla na ko yàlla may gudd fan sama mag a ngi may dégg ba pare am na vaar mm-hmm. ñu ñëw kër gi journaliste yi commencé ñëw mu ne dee naa ànd ak moom dem këram parce que moo ëpp sécurité almadi almadi almadi ñu ànd dem mm-hmm. bi ñu demee man dama am sama dund mm-hmm. comprendre nga li ma la yére yooyu ma leen juugaloon fii moom la ma mës a jox ci yére barki yonent yàlla Muhammad bi may njëkk a dem di jënd yére xam nga këram fi mu nekk ak casino bi sorewul mhm. Papis konaate laa àndal bi ma ñëwee ci bitigu marqué yi laa dugg bi ma jëndee ba pare Papis dafa avant may fay sax la ma xëcc ne ma am naa ay booy ma ne ko sama waa kër Sandaga lañu nekk mhm. mais man li may sol léegi ak li ngeen di sol Sénégal du benn parce que mhm. chinois yi ñuul ngeen man américain la <laughs> d'accord yaa dégg li ma la wax ah, ah. daal di jënd dugg Aldo xam nga dugg ci bitigu marqué yi xam nga jënd li ma bëgg a jënd yëpp te ba léegi maa ngi moom. mais dafa toog fii Pam Ndiaye jàkkaarloog moom mu ne maa ko doon jëndal yére yor naa ko sama kër ay weer. këram sept jour laa fa def Ablaye Diouf. man ak moom a bokk garage mën nga mën naa la may bunt nga ñëw def reportage ci moom anytime parce que man lay liggéeyal sama rakk la. mooy mhm. Ablaye Diouf moo ñëw ci kër gi. bu ngeen fàttalikoo 2017 bi ma fi ñëwee dafa tombeek ñuy waajal tabaski. Mhm. xam nga sama jarbaat bi may wax ne sama patron Iboulaye Sa Iboulaye Diagne. xam nga boole maag laay juuf jox ko oto ne ko fu sama nijaay di dem dee ko yóbbu. ma woo laay laay ñëw jël si ma ma dem waal yi. yaa ngi dégg dew woon sax waal yi Medina dama ne laay Medina laa gën a nam ma fi ma juddoo nañ dem. ñu ànd ma ñëw wër rue vingt cinq gàlle maalaw rue vingt trois foofu laa màggee. dugg sax biir école Médine ci guddi gi. boobu maa ngi am defe naa cinq jours ci dëkk bi. Mhm. xam nga ñu génn mun a jaar. Euh, riisis bi ñëwee ba riisis laay jaar yoonu goltape bi ne ma penc bi ma ne ko pénc fii mooy penc mu ne ma waaw ma ne ko mais fii cinéma la xam nga taxawal mu taxaw ma ñëw ci bunt bi taxaw rek Thierno Gadiaga génn moom mooy euh, garde corps waali ne ma non il faut nga dugg lii xam nga xaru xaru xaru booy waru mu dugal ma ci biir ma génn ànd ak laay ñëw kër waa jooju bi ma ñëwee xam nga fëgg ubbi wuñu nga li ma la mm-hmm. ma ne laay soxlawul ñu leen déranger nañu fanaan ci oto bi ñu fanaan ci oto bi ba bët moom mu teel a ñëw fekk ñu foofu bu mu ñëwee mu xool laay rek comme noonu ngay xoolee nit rek xam nga am soupçon ci moom xam nga ñu dugg ci biir mu wax ko non sama kër xam nga sécurité kërëm kërëm ma ne ko hé defal ndànk yoroo doom jabaram a ngi taxaw barki Sëriñ Fàllu noonu laa ko wax ma ne ko yoroo doom xoolal fii mbuus laa fi am mën naa jéeg ci kaw léegi jël ko xoolal dem sama yoon ñëw ma indi ay nit sa buntu kër ñuy taxawaalu dama ñëw fekk sa waa kër tëdd dérangé wu ma leen ma bàyyi moo tax nga fekk ñu fii ñuy nelaw comprendre mu commencé di wax ma ne ko noonu arrêté loolu mu yuuxu wax ma ne ko demal nga wax ak sa jabar bul wax ak man yooyu parce que sa jabar bi may génn tàggu naa ko wax naa ko heure bi may ñëw mu ne ma amul problème veille tabaski la woon xam nga ma ñëw fekk ñu tëj buntu kër gi bugguma déranger kenn ma fanaan ci biti amoo droit yuuxu ma xam nga le lendemain ci laa woo sama benn grand frère Saliou Dioum dafa yor ay appartement fii Maros Maris ay building mu jox ma caabi ne ma demal foofu sept jours xaw ma neuf jours laa def këram mu ñëw toog fii ne waa ji ay weer laa ko yor sama kër slip sax amu ko maag ko jëndal moo tax may nil ko bagage yi fii xam nga parce que buzz lay wër buzz la doon wut ci man àdduna bi yëpp xam nañ ko moo tax bërki démb rek toog na ci benn tele di wax fayeeku naa fi avocat sàngam maa defendre kii mais tudduma ma parce que man défendre ruma ma de dafa défendre poosam parce que lépp lu mu defal Assane Diouf Viviane Sofé ngi fi li ma wax Sali Diop a ngi fi Ousmane Tounkara ngi fi dañ ko fay man kenn defaluma lu ma may. plaider luñ ne comme ni ñuy defalee. des fois jamais non Adji Sarr. non activiste la wax comme ni ñuy defal des fois ñenn ñi nga xam ne dañuy dem plaider leen. non loolu dafa am dafa am dafa am avocat yu koy def. mën naa la ko limal. mosoo gisoo gisoo fi benn activiste bu avocat boobu di défendre parce que activiste yi dañuy xeex moom ki muy dimbali ñun duñu ay dof. Baye Fall duñu ay dof de. avocat yi nekkal sénégalais yi. kenn déggu leen ci affaire Adji Sarr mais avocat yi nga xamante ni Macky sàll moom moo leen di dimbali fii ñu toll nii parce que mënuñoo gañe kees ba pare kenn wóoluwu leen ñoom ñoo topp ci Adji Sarr di mbelele la rek ba bërki démboo Njaay ñuy taxaw di accuser ay kilifa ci dëkk bi di kàcc ñooñu amuñu lu ñuy wax ci ñoom parce que benn man du ma wàcc mukk ba dugg sama kër sama doom dem YouTube bi di ma wan naa ma papa lii nga def ci journée bi te toog naa këram sept jours yooyu heure bu wàccee doomam bu góor boo xamante ni moo ëpp fauteuil bii fauteuil la xolal mooy toog rek naan ko papa mu mu def ni naan <laughs> kon non du Assane Diouf man kilifa la li may wax day am fu ma ko teg su may waxee dama koy gëstu lu may def tamit dama koy def ci yoon xam nga mais koo xamante ni yow dem nga ba senegal yëpp boo yeewu woon ne xale yi ndax bëgg ngeen bàyyi bu tudd diw ñu ne la auzu billahi mina a rajim xam nga kooku aw ma dara lu may wax ci moom la pare du ma tudd turam fa dugg parce que ay doomam taxaw nañ témoigner donc voilà yan doomam gis nañ gis nañ ay émission yu ñu ko invité ay doomam mais yan doomam yan doomam mais seen bàyyi yan doomam man am na am seen tur leen a tudd yan doomam non bu leen xasal seen bàyyi am na ci yoo xamante barke yàlla Muhammad am na ci doomam yoo xamante ni ak soxnaam soo xamante ni du ñu laale fi mu toll nii dama damay wax ak moom dama am ak moom jàmm parce que jikko ju bon nit bu ko yoree bay xatal askanam di xatal waa këram. mais ñi gore ci kër gi dinañ la wax ne doo nitu dëgg. mais noonu la Pape Ndiaye def bañ koy xas noonu la Assane Diouf def bañ koy xas. Pape lan nga def lu bon. ah. mais fii la toog xam nga ci YouTube bi wax wax bu bon bu ne ah Pape Ndiaye moomu naa te Pape waxul lu dul dëgg. waaye nga xamante ni moom la Sénégal ah, yëpp di wax ñu jàll ci leneen parce que déjà comme toogu fi voilà comme comme ba pare tooñ ngeen parce que may ngeen ko ba suba pour mu amatul luy ah. tontoog lu muy wax bëri na wala day toog di sànni xeer rek. ah moom moom maître. waaw waaw d'accord. day non bul ne day toog di sànni xeer da nga naan day toog di kàcc rek. day non c'est vrai. day toog di kàcc rek te li muy wax yëpp dara du ci dëgg du ci indi benn preuve.